Thank you. ñaanal yàlla suturaal ko may ko ndam lu seddu guy dimanche ndax mérito na ko ndaanaan la ku lu fadle et puis day béggal jaamu yàlla yi xale bu yaru la te man ku ma jox cër yaa ma moom te daf maa jox sama cër dama koy ñaan yàlla may ko ndam lu seddu guy guy guy guy dimanche incha allah nee naa ko ne comédie daa am fu mu yem ci digg xam nga xam nga adversaire ko njaay laax ndaanaan la ku lu fadlem rek ci digg géew cinq tonnes tubaarkaal yàlla ko yàlla ma koy yéen fulla fayda jom say morom nga fi nekkal ñuy bëri di daal wala ko wax say morom nga ñuy bëri daal kon nag li ci des yaa koy mot am sa gëm-gëmu bopp te yàlla la yàlla sutura da ngay dem de ci kaw ci kaw ah am nga fi ko ndam li mën a doful daa dof moom doful xam na fi ko ndam li mën a yóbbu liggéey ci combat daal lim ci combat bi yëpp Uh. noonu moom moo waral bis bi war a daje ki nga xam ne nag tey mooy Ndiaye Laax muy le 5 ci diggante Papa Sow ak Siteu 5 ngi nii presse baa ngi nii ñëpp ngi nii 5 ana lan ngay wax Ndiaye Laax. waaw au di wax ginnaaw bi sant yàlla julli si yonent bi di sant ñaari waajur. di wax cinq ton moom benn ndaw la bu judd 1997 sixième mois troisième jour hôpitalu Ndamaatu 23h30 su si faire di présenté woo loolu di bëggee ñëpp di bëggee waa Géejawaay di bëggee àdduna ndax 5 tonnes nekkatul 5 tonnes Géejawaay 5 tonnes àdduna la ndax mois su si teefu su si rentré le doon le drapeau Géejawaay waxi naan mim zat di bëggee ñëpp daal bonne question di la déglu bu baax Seck est-ce xam nga ki ngay bëreel tey di Ndiaye laa xam nga ko. waa xam nga loolu moom sax na concerne pas man li ma concerne mooy li ma liggéey samay coach loolu moom ma concerne ndax man maa fekk jàngoro yëpp ma jël Siteu. Ah, waaw waaw nga kon Siteu samay coach xam na li ngay faj ñun ñu ngi siy liggéey booba léegi ku ci mel ni Père Bas taayewul quoi vraiment ndax combat bi def na 3 ans man 6 millions laa ñàkk barke leeru alxuraan grand combat dañoo baax di ñaxtu rek mais man maa leen gën a sonn mais daal li ma la mën a waxal mooy. adversaire la rek comme adversaire yi suñu papa suñu grand la ndax ba muy bëre ñun xalaataguñ bëre ndax ñun saa kees nekk réel sax fekk nduguñ si lambu comprendre nga. Mhm. kon nag li ñu mën a wax mooy kon suñu jom ak suñu fula ak tey wane li nga xam ne tey moom la am moom la sénégalais bëgg moo ñu indi fii ñu nekk yaa ngi dégg di wax combat bi daal metti na trop ba egsi fii nii kon ay fan a des li ma la mën a wax mooy mooy li ma la wax sànq Odobert bi ñu tijji wax ji jël siti kon tey adversaire bi man mënu ma jaaxal ndax suñu igri am na bu ne igri am na bu xam nga tey daan Ndiaye laax fan la la mën a yóbbu ci làmb bu démb doon tey comme ni ma toll fii nii yàlla xamee du ma moom bu démb doon tey comme fi ma toll nii bi ma koy jël moom dafa ma war a sant yàlla xam na loolu billaahi wallaahi man suñ ma walaajee ko bëri sax damay rusa wax ki may bëreel mais na sant yàlla la quoi suñ borom mooy jagleel kenn ku ne li nga war a am kon tey man maa ko man tur bi ma ko may yéene naa ko ko. mais dama koy daan insha allahu rabi bu neexee yàlla suñu borom la 5 décembre. ya su gis ni combat bi jàpp nañ ko mu annulé ñu jàppaat ko mu annulé tey ñu jàppaat ko lan ngay wax waaye Géejawaay ak lan ngay wax ak sa koñ ak mobilisation bi. waaw xam nga ab jaam moom. sabab loo lay def. ab jaam. waaw maa ngi tuub ab jaam. sabablu rek lay def ndax combat bi li ma la wax ku soog a tijji def na 3 ans xam nga li ko yàq ak li koy si ñun yàlla mooy dogal mooy tracé ay deuxième. salaamaaleykum. asalaam père waaw. père si waaw kii mooy Fervé Diop fitir maire waxi naan min sat waaw est ce que dama lay laaj 5 tonnes mi nga daa gis ak may gis nii est ce que la. Oh! Oh! Oh, ndax ma tax ñun ay jeunes lañ je suis jeune y' a pas de film y' a si tu travailles bien y' a pas de triser mu donne fi ma laay adversaire bi mënu ma cee sori. xam waaw. non xam nga question bi dañ ma koy laaj boobu la dugguma si bu ñu jàpp ne dama ko ragal wax ji. ragalu dama ne laax li may wax moom xam nga kañ après su may defaat point de presse pour bu may dem palais mais loolu noonu du discours bi. ay li ma la wax de. parce que Serigne Saliou laa la waatal. wala li ma la wax dama ne la 5 tonnes benn ndaw la bu juddu 1997 sixième mois. troisième jour hôpitalu Ndamaatu 23h30 laa juddu 30 minutes moo ma teeloon am minuit. waaw waaw yaa ngi bi liggéey naa ci ñi ma ci war a àndal mooy samay course comme li ma la wax comme ndax ñoo doon ànd dem dîner fépp di sun di nuyu mbër yi nga xam ne ñoo nekk suñu écurie ku ci mel ni Marley ku ci mel ni Pape Thiam 2 di ko ñaanal jàmm Pape Thiam 2 di ko ñaanal jàmm ak wér quoi ak sutura ci barke Serigne Saliou di sant suñu waa écurie yëpp ay ñoom Arsan Naal. léegi nan lañ mën a xaar ci combat bi door mu daanu la wala jàpp daan. combat bi mënul yàgg lamb xale ak mag la. waaw waaw waaw te géej waay yàlla mu ngi suturaal comme ni ko grand liir waxee léegi rek. comme ni ko grand liir waxee maa ngi koy nuyu au ndax géejawaay sans ñu ay man rek maa ci des. waaw waaw da nga war a kon na ma géejawaay ñaanal rek. waaw mais man li ma décidé man ak li ma gëm barke Serigne Saliou Mbacké. li may isaan li may làmbool musuma koo làmboo sama àdduna. waaw barke Mouhamed. ndekki ñaari ndekki di reer ñaari reer. di entraîné trois fois. ba ko jàppee du yow li ma la a laaj mooy yow da nga xam Ndiaye la comme daan. moom dëgg yaa ngi dugg ci bis bu mag muy ci diggante Papa Sow ak Siteu nga war a jàmmarloog Ndiaye laax. ñu gis ne Ndiaye laax moomu Papa Sow Siteu moomu nga wax gudduñ toll nii kenn moom jàpp ab laarite xaw ma am la bu ñëpp xam la. yow loo def. mu jógee ci defet. waaw li ma la wax dégg li ma dama ne xam nga tey mooy li ma la ko ma laatal ko ci France pour nga dégg dama ne. quand venu se donne les avants c'est rentré les cognes c'est les rentrées il est père Pambaye quand venu se donne adversaire adversaire ma ne ko moi c'est donne il est réponse c'est donne le Ndiaye la mu ne ma c'est pas lui il est donne rentre avance ma ne ko c'est réponse c'est moi quel papa Bambay ah y a pas de tricher ndax c'est se jeunes c'est gëm sa bopp kon c'est donne looy wax ci yi waaw nan leen ñu may nan leen ñu may nan leen ñu may may suñu bopp presse ndax Père nekk te kilifa la quoi waaw léegi kon da nga waaw Ndiaye li ma nga tey abu la ko dama boo déggee ba léegi tontu ma si mooy Ndiaye laax prix moo ko fi bàyyi lamb xale la ak mag yaa ngi dégg man samay cos lañ ma war a defal def nañ ko liggéey nañ ma ba ma egg si fii kon li ki des man maa war a prouvé noonu jërul question bi a xaar ci a xaar ci kaar yi ak bi nga xam ne moom la 5 tonnes war a waaw xam nga tey 5 tonnes booy wax loolu rek day mel ni. waaw xam nga tey loolu noonu sax dafa am ñoo xam ne dañu ko gérer. yaa ngi dégg lépp a mat lépp a mat. ak billet yi. lépp lépp. waaw ndax tey mooy li ma la wax sànq bi ñu soog nee naa la su dee mu doon tey du ma jël njaay laax keneen laa jël ko dul moom ndax li ma am suma ko am. lamb ji maa nekk seule personne bu Pape Abdou Fall du joxe ticket barke leeru alxuraan dañ kaa woo pour mu jox ma ticket te fitir meer dina jënaat ay ticket. comprendre ma la. mu mel ne mu mel ne 5 ah, tonnes 5 tonnes li la topp ci mbooloo li nga wax moo la topp ci mbooloo est-ce que yow combat bi nii daan war na la ci. yow waxi dof nga wax yow sama noon nga ndax yow question yi ngay laajte question yaa ngi dégg sama waa koñ amul lenn lu ma leen man a faye lu dul victoire ndax dañoo sonn yaa ngi dégg ñoo jël seeni boole dof man 5 tonnes man boolu dof laay dundee. waaw waaw sax yaa ngi dégg. fataay 6 ans yooyu nga dégg moo ko dama koy deseeroo mais du sama reer man boolu dof laay dundee barke leeral xuraan mais li ma la mën a wax mooy waa géej waaye mënu ma leen fayal lu dul ndam moo tax bi ngay wax ma ne la bi du kaa suñu écurie am na ku ne. loolu laa bëgg nga xam ko suñu waa écurie ñoo ma gën a bëgg combat bi. waaw kon nag li ma la mën a wax mooy day ñëw rek yaru. ku la xool da ngaa entraîné. ñu daan ko ci waaw revanche la Géejawaay Lamsar guy gi Siteu Lamsar du ma si du ma si wax ndax du raw du rawaas sax comme li ko père Bass waxee marle ko réel Marley boo dafa mën nekk del daan ko waaw cinq tonnes kon daan naa naa naa def njaay laax wala déggoo li ma la wala dafa am looy déggee nga teg micro bi suuf nga dégg dama ne la laa law géejawaay man maa ci des leer na te dama koy prouvé njaay laax laa mu neex a muy naxari bu neexee yàlla dama koy daan yaa ngi dégg sama tëdd fil dafa daan tëdd filam dama ñëw rampali rek